ñuy faral di wax ci wàllu protection ak ci wàllu baat bi wolof di tudd te mooy boo bëree ñu bëri ànd ak yow boo bëriwul nu bëri daanu sa kaw yàlla dafa dogal yooyu yépp mi ngi ci alxuraan gis nga boo gisee boo duggee ci néegu xutbu yu mag yi ngay faral gis ni du nu bare lu ni teg ay téere ay téere xam-xam ci seen bibliothèque pourtant minimiser wuñ ko waaye dañu dem ba doyloo ñoom alxuraan ak seen cours ndax dañu gis ni amul lu nekkul ci biir alxuraan amul lu nekkul ci biir alxuraan problème yi nekk ci société bi yépp ba ci problème yi ngeen tudd yépp xanaa nit moo dul xam alquran mais amul benn boo xam ne am na te nekkul ci alquran su ma leen doon indil ay exemple ñu bare problème de protection la ñuy wax mais xamuñu ni problème de protection bu ci gën a efficace ayatul kursi amul tey lu la nit ñi daje daje liggéey la lu la nit ñi xeex xeex boo jëloon chaque matin ngay jàng fatihatul kitab teg ci salaatul fatiha jàng cinquante ayatul kursiyu cinquantième bi bi nga xam ni moo mujj hifzuhuma bi nga baamtu ko soixante-dix fois à la dernière récitation hifzuhuma hifzuhuma hifzuhuma soixante-dix fois ci cinquante cinquantième bi so koy àggale wa huwal aliyul azim tëfli ko ci ndox naan ci sangu ci kenn du la mënal dara te alquran la te alxuraan la jabar nekku ci dara nekku ci alxuraan la te lu la nit ñi xeex xeex tànk yank saxoo duñ la mënal dara boobu benn la ci